salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk internet yi ñuy topp ak mboolem mbokk internet yi fu ngeen mën a nekk nag ci biir réew mi ak bitim réew nuyuwaat nañ leen nag beneen yoon dikkaat nag ci jataay bu am solo bu ñuy tënk rek ci lu tënku te làmboo lu bari ànd ceeg ki nga xam ne mooy alxaaja Abdullahi Thiam di boroom xam-xam di sëriñ daara waaye di doomi daara di doomi soxna moom mi ñu àndalaat tey nag miin nañ ko waaye li tax ñu gën a sawar ci àndaat ak moom mooy li yàlla def ci moom te mu koy fas yéene laabire jaamu yàlla yi te lal ko ci ragal yàlla ak yërmande kon looloo tax ñu bëgg tënk tey waxtaan wu gàtt ànd ko moom mu làmboo njariñ yu bari moom nag duñ leen wax moo kan mooy kan li koy feeñal mooy waxam ak jëfam ndax wolof léebu na nee na ku wax feeñ gannaaw ku wax feeñ nag dañuy dikk ak moom ci waxtaan wu gàtt teg ko nag ci xam-xamu baatin te mooy ilmul asraar liñ ci mën a wax ci kaw mu mën a jóg ñu wax ko liñ ci mën a juñu ñu juñu li nga xam ne mënee su koo wax ndax mbiri biir la wàcc ko noonu ku ci jëflanteeg moom mu mosal la ci. Hadji maa ngi lay nuyu beneen yoon di bàyyi nga nuyoo mbokki internet yi ñuy topp ñu door a dikk nag ci laaj ak tontu. alhamdulillahi rabbil aalamiina wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi huddatil muhtadin xaq qadrihi wa miqdaaril azim nuayikum jamian wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala ñi ngi mbu nuyu mbokki jullit yépp fu ñu mën a nekk ci àddina bi rawatina fii ci Sénégal ñi ngi kenn ku ci nekk ci sa ak ci sa sant di la ñaanal yàlla foo mën a nekk yal na la fa jàmm fekk di ñaanal yàlla ñépp sutura ak tawfiix ak taysir di leen nuyoo nuyoo bu sell mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala jërëjëf xaaja Abdoulaye tey nag fi mu bëgg ñu waxtaane mooy jàngoon nañ a adduwaawu silaaxul mu'min adduwaawu huwa al ibaada yàlla ni woon ud'uuni astajib lakum ñaan nag danga koy defal sa bopp amaana nga soxla ay mbir yoo xam ni mbiri biir la jàngoo amoo xam-xam bi faaw nga seeti ku ko xam mu dimbali la ci ñu gis jamono ni mu lëndamee nit ñi ci wax bari ba munoo xàmmee ki am xam-xam ak kii raas ak ki nga xam ne wax képp la mëne ba nit ñi découragé maanaam tey ji Baye Abdoulaye El Hadj Abdoulaye maanaam njariñal ñaanlu ak ki nga xam ne du ñaanlu ak kii ñaanlu maam seen tafriq ku ci maam seenu mujj waaw xam nga dañuy wax baada auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim yàlla daf ñuy wax ci alquran nañu ad'uuni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen kooku yaxab alquran la boo xam ne ni sunu borom bi tabaraka wa taala moo ñu ko wax yonentu sallallahu alayhi wa bi nga xam ne nag alquran ci moom la wàcc nga xam ne dangay jàpp sunna gëm yàlla jàpp ay sunnaam gëm alquran yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam daf ñee wax nañu addu'a usilahul mu'min ñaan ci boppam mooy ngànnaayu jullit ngànnaay nag boo ko dégloo moom mooy armo yonent bi sallallahu alayhi wa waxaat ci beneen xadis ne addu'a muqul ibada boo ko defee kon nit ki ala kulli xaalin muy ñaan yàlla ndax ki la bind wax na la ñaan ma fokk nga di ko ñaan mu may la nga sant ko mu dolli la nit nag dana ñaan dana ñaanlu booy ñaanlu it nag ci ki ngay ñaanlu mooy ki nga yaakaar ne war na laa mën a ñaanal ci kooku rek ci nga mën a dem mu ñaanal la yàlla kooku nag nu muy mel nag mooy ki sa xol ki nga xam ne nii sa xol doy sa sa xol doy na ko kooku moom moo la mën a ñaanal waaye ku sa xol doyut nag kooku mënulaa ñaanal su fekkee na nag dangaa yore xol boo xam ne nii dafay dengi dengi ci xiila ak xaala yow beeboo nga toog ndax ñaanlu nag dafay fekk nit ki mu gëm ko bu baax mu mën a ñaanlu yàlla mën koo nangu te gis nga jamono jiñ tollu nii képp koo xam nga nii bàyyi nga sa bopp ci wàllu ñaan lu yàlla ci lu lay musal wala lu lay jox xamal ne sànq nga sa dund bi waaw ndax dafa am ay nit ñoo xam ne bu ñu xëyee ba jant bi sow ci luy yàq nit rekk ci la ñuy dox yow nag soo jëlee sa bopp nag nga foog ne yow ni nga mel ni la ñëpp mel ni nga mel ñëpp meluñ noonu fexa wax man ngaa wax ne duma ma bëre de waaye fexeel ku ku bëree ba daanu sa kaw maanaam bu ko jig loolu nag bokk na ci nit ki mu protéger boppam ci xanam gu nekk te nit ku nekk am na ci droit ndax ñaan fi lañ ko fekk te ñaan yàlla moo ñu ko digal ñaan yonent bi sallallahu alayhi moo ñu ko fi bayee moo ñu ko digal allahuma inni ausu bika min ilmin laa yanfa loolu ñaan la wa amalin laa yarfa loolu ñaan la wa duaau laa yustajaabu yonentu bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne yow yàlla maa ngi muslu ci mag nga may ma xam boo xam ne du jariñ laa yanfaxo du jariñ wa amalin laa yarfaxo ak jëf joo xam ne kenn du ko yëkkati nekku nekk bëgg nga lépp loo jëf rek mu yëkkatiku nekk loo xam ne ni lu kawe mm-hmm. wa duaa u laa yustajaabu ak ñaan goo xam ne nii kenn du ko nangu yow yàlla maa ngi muslu ci yooyu bu ma ko may mm-hmm. kon moo tax nit ki fokk mu ñaan su yëngatoo yàlla yëkkati su liggéeyee mu am su ñaanee yàlla nangu loolu fokk nit ki mu ñaan ko yàlla te lépp loo gis rek wala loo dégg rek ci xeeti mbaax rek boo demee ci alquran rek danga fekk yàlla teg na ko fa di ko préparer nii xam nga alquran ji bi muy wàcci dangay gis ne am na ci benn aay yàlla mi ngi wax ne law anzalna haadha alquran ala jabalin la ra'aytuhu qaasi'an mutasaddi'an min xasyatillah law anzalna haadha alquran ala jabalin su fekkoon ne alquran dañ ko wàccee ci doj la ra'aytuhu qaasi'an alquran su wàccoon ci doj doj dana nekk pënd waaye al ci lu mu wàcc ci yonent yàlla muhammad yonent yàlla muhammad ñu mu ko jox aw xeetam ndax gis nga moo tax yonent bi boo demee yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne ne nit am na ci aw lumb wu nekk ci doomu aadama saa bu defaroo mu ne jëmmi nit ki yëpp dafay defaru te kooku nag mooy taawu alquran kooku mooy bëgg alquran kooku moom lay alquran di neex ci moom mu ne su yàqoo nag mu ne jëmm jépp dafay yàqu ñu ne ko loolu mooy lan mu ne allah wahiya al qalb kon nga xam ne xol ci la xañaan nekk xol ci la lu baax nekk waaye xol ci la lu bon nekk loo ci dëkk rek loolu moo cay taa yal nañu yàlla musal ci xañaan alxasadu laa yasuudu nit ku xañaan du doon sang mukk kon yow mi may déglu te di ma bàyyi xel dama lay wax ne la delluwaatal ci alquran danga fa fekk yàlla mi ngi lay wax ne la suyyina li naasi hubbu saxaawaati min annisaayi wal baniina wal qanaatiril muqantiratu min alsahabi wal fiddati wal xayli musawamati wal ancaami wal xarsi saalika mataacu alxayaati dunya wallahu indahu husnul maab te gis nga laaya jooju yàllaa lay wax ne la yow mi nga xam ne nii yow yaay doomu aadama bi yow yaay nit ki suyyina li naasi la wax est-ce que wax na suyyina li lasiina aamanu est-ce que wax na foofu suyyina li lasiina kafaru suyyina li naasi la la wax hubbu shahawaati waaw mina nisaa yi mooy jigéen wal baniina mooy li tabax yi ñuy gis nii wal qanaatiril muqantiratu nit bëggul alal bëggul urus bëggul lépp loolu yëpp saalika matan wal xayaati dunia wala waxen du xusnul ma ab kooku yàlla joxoñ na la yow nit ki wala yàlla joxoñ na la yow nit ki na la li nga bëgg yëpp maa ngi la ko defal foofu dellul ci aaya jooj soo bëggee wërsëg dellul ci aaya jooj soo bëggee nit dellul ci aaya soo bëggee alal dellul ci aaya jooj soo bëggee gàtt delloo ci aaya ci lépp koom-koom bu nekk ci àddina boo delloo ci aaya jooju te xam ni ngay def yàlla dana la jox lu nekk ci aaya kon alquran dalil la tegtal la ci nit ki ci mu war a jaamu yàlla waaye tegtal la ci nit ki pour mu am fu mu ñaanee waaye tegtal la ci nit ki pour mu war a jiitu ndax wa saabiquuna saabiquuna ulaika almuqarrabuun kooku am na lu ko tax waaw am na lu ko tax a jug da gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey ci xam-xam ci la ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kere bi muy gàddaayee mag jëm madinatul munawara nga xam ne booba xéeféer yi ñi ngi tëdd ci buntu këram di ko xaar kere la yasin yaasin wàcc yaasin wal quraanil hakim mm-hmm. innaka la minal mursalin mm-hmm. ala sirati mustaqim tanzilu asisu rahim lu tunsila qawman maa unsila aabaahum fahum qaafiluun laqad xaqal qawlu ala aksarihim fahum laa yuminuun inna jacalnaa fi agnaaqihim aglaalan fa hiya ila asqaani fahum muqmacuun wa jacalnaa min bayni aydihim shaddan wa min xalfihim shaddan fa axsaynaahum fahum laa yubsiruun mu mel ni mbóoti ngi foofu nga gis ne aaya jooju la yonent bi jàng tibb ci suuf si taf taf af ci loxoom sotti ko ci seen njañ yi jaar ci seen kaw génn dem madinatul munawara wis ko ci seen kaw kenn yëngatuwut gaa yi di nelaw di nelaw ba digg bëccëg xaali yongi ci lal bi di ko xaar aaye jooju dama ne ñi nga xam ne dañuy sàcc seen alal yi di ko jël te bëggoo sàcc teg sa bët sa alal fi nga ko denc wala mu di ko jël aaye jooju mbóotan ci nit ñi laa nit ñi nañ delluwaat ci alquran nit mën naa jariñu te doo dugg ci fitis di sacrifice di dugg ci lu lay jox bakkaar wala loo xam ne nii day yàq sa àddina li boo xam euh, lu kenn mënta lu kenn euh, sikki sàkka la ndax euh, maa farat naa fi kitaab min shay'in yàlla suñu borom moo ne woon bàyyiwuma dara lépp mi ngi ci biir alquranul karim def di nag alimahu man alimahu man jahilahu ki ko xam xam na ko waaye ki ko réer réere na ko xaaj Abdoulaye li nga fi wax ni yëpp dafa doon ay addil la ay dalil yoo xam ni yu leer la waaye nag dal gi ci war dafa néew ci jamono waaw loolu yëpp xam nga wala aqibatu lil muttaqina wala udwana illa ala zalimin ataqwa min al maanaam ragal yàlla dafa xaju ci lépp boo demee ci alquran da ngay gégg ay yaa yaa yu bari yaa ayyuha allazina amanu xaqa tuqaatihi yaa ayyuha nnaasu taqu rabbakum nga gis ne yaa ayyuha allazina amanu atiu allaha wa atiu rasul wa ulul amri minkum nga gis ne alquran mooy lépp te léppul tegtal euh, gis nga dangay gis ne yàlla ci boppam ba muy wàccee iqra bismi rabbika allazi xalaqa xalaqa al min alaqin iqra wa rabbuka al akramu allazi allama bil maa gis nga maa nga gis ne loolu njëkk a noonu ci alquran nga xam ne ci lañ waxee ne yonent bi ne ko jàngal sa turu borom mi nga xam ne moo la màggal bind lépp nag ngir yow xalaqal insaana min alaqin nga xam ne alamal insaana maalam yaxlam mu xamal doomu aadama lum xamalul kenn yàlla moo xamal doomu aadama lum xamalul kenn waaye nag xam-xam yi nag mu sutlanti ko nag kenn ku ci nekk am ci ab niveau gis nga iqra boobu ku bëgg sa xel neex foofu yàlla denc na fi secret boo xam ne nii pour xel mu neex la. balaa mooy ñëw ci secret boobu sànq dangaa ngaa laal fi nga xam ni ci mooy na linnaasi te Hadj Abdoulaye jamono jii nit ñi soxla nañ crise lañ nekk ah, mbas mi sonal na nit ñi liggéey yu bare ngi yàqu ñi ngi wàññi emploi yi bari na ñoo xam ne tey soxla nañ li nga xam ne mooy ku leen defal ubbiku bayre samp leen ñii sëy mënuñu am njaboot te tudd nañ fol banaat baniina wal banaat wala nangam ñi soxla njaboot ah ñi soxla alal ñi soxla comme ñi soxla ubbi lu ne maam zalika mataaul xayaati dunia jooju laay yàlla tënkee aay ji tey jii kuy dund ci kaw suuf soxla nga ko pour doon milliardaire wala millionnaire wala nga génn ci dëgër gi nga xam ni moom la jamono metti ci yow ndax ku ñëw di nga ko ci mën a defal ak fatxu ak ubbiku ak hëyba waaw xam nga doomu aadama léppam ci rekk ci sàkku la lépp loo sàkku rek yàlla dana la ko jox néew na nit ki bëgg dara te yàlla tegu ko ci loxoom ndax yàlla dafa jegeeg nit ki kanaa nit ki foog ne moom yàlla daf koo sori te fekk yàlla nga ko jege te loolu sax ki jàng alquran te xam alquran yàlla wax na ci at ci aaya nee na wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid man yàlla maa leen gën a jege seen buumi xol yi mu demaat ci beneen aaya nga dégg na yàlla mi ngi wax ne wa aynama tuwallu fa samma wajhullah gis nga alquran Moussa ku xam li ci yàlla di wax xam nga nga jàng ko ba pare jàng yax bi xam li ci yàlla di wax xam li muy jariñ ak a neex na xam ne kon soo feebaree kon kon alquran mën na la faj muuminiin wa yubashiral muuminiin la gëm wax de ñi ko ñi ko gëm kon tey makaanan aliyan loolu alquran la wa rafanaahu makaanan aliyan waa xam nga loolu secret la képp koo xam ne nii dafa ñëw maanaam utal si ñi ah ñi xam na li ko tax a jut du yàq du du yàqe waaye lu koy defaral la bu soob yàlla ñun danañ ko teg jox tegtal yi ñi xam ci alquran defar ko te dana ko gis dana ko gis. mbokk yi loolu ndax émission bi ñu am lu tënku la euh, li ñuy junj foofu rek mooy bokkul ci borom xam-xam yi nga xam ne dañuy bàkku di fëgg dënn naan ku ñëw nangam lu ci bari suñ ko ci forcé wul rek du ko nangu waaye xam nañ ci moom xamin xamin goo xamante ni nii ku jëflanteeg moom danga xam ni jëflante naa koo xam ni musumaa jëflanteeg moom ci axlaaq yi te muy jikko yi. waaye ci afaal yi te mooy jëf la jëf ji nga xam ne moom lay jëf waaye ci lal gi mu ko lal ci kaw li nga xam ne mooy taqwal ilaahi zahiran wa baatinan te li ma gën a neex ci moom du ko nangoo wax waaye dana la jox mbir nga dem lay faj sa ajo mi ngi ci kurus gi fa mu toog waaye du mbir ma mu la jox kon kooku mooy ki nga xamante ni mooy Hadji Abdoulaye Thiam numéro téléphone yaa ngi noonu affiché wéy leen di jokkoo ak moom ci kàttanu suñu borom ndax dana leeral lu baree bari loo xam ne day junj rek xaaji Abdoulaye ki nga xam ne dafa nekk ci dimension boo xam ni xeex place bi mu nekk xeexante bi bari na fa kër gi mu dëkk kër famille xeexante bi bari na parce que iñaan bi ñu ko iñaane bari na mu nekk ci millier bu dangereux wala ci géewu politique bi la nekk wala ci géewu syndicalisme wala ci géewu leneen ak leneen mais ki nekk ci maaraka boo xam ne mooy barab boo xam ne xeex bi dafa bari mu bëgg nag ñu defal ko li nga moo xam ne mooy xisnan xasinan waaw xam nga kaaraange moom bu ñu koy wax yàlla daf koo prépareel jaam bi ci alquran bu yàgg jaam bi moom jamono bu nekk yàlla mu ngi koy wax ne ko na nga muslu ci muslu ci gan ci saytaane saytaane mooy lépp lu lay loor rek mën naa doon nit mën naa doon lu nekk saytaane mooy lépp lu lay lor ndax gis nga ab noon dafa dëgër bopp te yàlla daf koo mën a jay te du sonn ab noonu du sonn mukk mooy def katab lu bon du sonn mukk saa lu mu jéem-jéem mu tëkku rek dana dem wuti weneen yoon woo xam ne ni fa jaar ba xaajoom faju waaye it nag alquran wax na la protéger ne am na ci loo xam ne boo ko defee ci sa jëmm képp ku la liggéey dana dee ku la liggéey ku la liggéeyee dana dee. Hadj Abdoulaye foofu dinaa fa taxaw tuuti ndax ku la liggéey faatu euh, yow yéene woo koo faat waaye innamal amalu binniyaati wolof di ko léebu naan yéene néeg la borom a fanaan xam ndax ki ñëw tey jamono ji ñu toll Ablaye Alaaji Ablaye loolu dama koy digal ku mu mën a doon tooñoo kenn waaye waajal sa bopp ndax ku ñëw di nga ko mën a dimbali ci xeet boobu. waa xam nga nit ki toog yow defoo kenn dara waxoo kenn dara yóbbuwoo kenn fenn waaye nit moo la xool rek. bëggula am na lu la yàlla jagleel te wa annal fadla bi yadillaahi yuxtihi man yashaawu wallaahu sul fadlil asim yow jëkkër ji nga amee mu mën a yëkkati oto kër di la ko may yàllaa la ko jagleel soo amee ku mu naqadi ba yóbbu la ci sëriñ mu liggéeyee la dee kooku affaire am la yow yóbboo ko fa de déggoo yonentu bi ne alxasadu laa yasuudu ko xañaan du nekk sanga te nee na nag wa iyaakumul xasadu fa innal xasadu yaxkulu la xasanaatin kama taxkulu naa la xatab maa ngi leen di moytu ndikuloo kañaan ndax xañaan dafay lekk jëf ju rafet comme ni safara di lekkee mat kon kay war ngaa xam ne kay yow mi xañaan ki nga xañaane su fekkee mu sa boppam nga yóbbu ko ci sëriñ di ko liggéeye dee waaye yaa rey sa bopp am si bàkkaar te la nga xamoon la nga bëggoon xamu ko waaw moo tax nit ku nekk rek war ngaa jéem a garante sa bopp ci ci ci yeneen jikko yi waaw ndax ndax jamono bi léegi moo yàqu ndax boo bëreewul it dañuy bëree daanu ci sa kaw ngay fexe na ku daanu sa kaw nga fexe mu tas. Abdoulaye dinaa fa taxaw ndax xëy na Moussa amul tur siiwul du kilifa ci amul ndombal tànk xëy na moom gàllaajam am na fu mu war a yem ki nga xam ni tamit euh, bokkul ak ki nga xam ni euh, ki nga xam ni kilifa la yor na ndombal tànk àddina wër nañ ko mbooloo wër nañ ko ndax bokkul. kooku bu soxlaa ku ko defal gàllaaj ak kaaraange maam mënees na ko ci loo xam ne nii maanaam nu waa ñëwee ci moom rek doo mën ci moom dara. waaw loolu am na. parce que gis nga gàllaaj bu nekk dafa am dimension gis nga dafa am koo xam ne dafa am gàllaaj boo xam ne nii xéeyoo ko mu am koo xam ne am na gàllaaj boo xam ne nii xéeyoo na ko waaye nit ki su fekkee dafa bëgg ñu protéger ko. mën nañ koo jox loo xam ne nii dana ko protéger moo xam ndombal tànk lu mu mën a am. nu waaye ñëwee ci moom doo mën a moom am ci moom dara xam nga dangay ngay gis koo xam ne nii dafay yore mbooloo mais mbooloo mi dana ci am ñoo xam ne nii bu ñuy dikk dafay am nu ñuy dikkee dañuy dikk pour yàq ko dañuy dikk pour mu yàqule waaye soo paree sa bopp nag lépp ci seen kaw lay daan. mooy mooy loolu rek kenn ku nekk ak ni ngay dikkee waaw. kenn ku nekk ak ni ngay dikkee defal ma ko loo xam ne ni lu ma wax mu lu ma ko wax mu jox wala lu ma ko wax mu def ko ah waaye yooyu yëpp nag soo paree sa bopp da nga ciy daal di të nit da të boo tëwut mënoo wéyegoo def dara nit ñi bëgg a ah, yëpp te nag alquran préparé na ko waaw alquran préparé na të gis nga dama lay wax ah, benn affaire waliiku xam nga waliiku waliiqu junj la dafa am ñetti saar yu nekk ci alquran moom la ñuy tuddee waliiqu maanaam maanaam waliiqu boo déggee waliiqu waliiqu mooy waaw gi mooy wal xasri lii gi mooy lii laa fi xurisin ah <laughs> xaaf gi mooy xolons bi rabbi falaqi mooy waliiqu waaw laam xaaf mooy waliiqu gis nga loolu nit ñi côté bu nekk ci àddina bi ci lañ may wooye ku médecin wax ne la sa biir bi dinañ ko xotti pour pour pour nga nekk jigéen ñi wérul ñu ne la sa biir bi dinañ ko xotti pour nga war a am doom hmm. soo ko naanee su su su ma la ko bindalee boo ko naanee kenn mënut musu ko wax ne ba xotti sa biir bi. te yooyu nit ñi dañ koo ba. mais ki nga xam ne moom jigéen la sax dafa taxaw fara. kooku it falama ataha nuudiya duñ ko yeggale secret bi foofu la nekk ci alquran alquran lépp secret la. nit ki ko xam ak ki ko xamut waaye nag boo xamut nag da ngay laajte ndax eh, bala ngaa jëf da war a xam soo xamut na nga laaj kan ngay laaj mooy boroom xam-xam ñi nga xam ne nii dañoo topp sunu si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa noonu la ko Laxdari yu waxee waaw moo tax bu ñu delluwaatee ci alquran rek danañ am solution waaye buñ delluwaatu ci alquran di nekk ci ay fitis ay yi mu la yooyu yëpp ay caaxaan rek la ñuy indil ak ay ay bakkaar. ay la ñuy indil ak ay bakkaar Hadji Abdoulaye loolu daanaka fa nga daanelee sa kàddu kon mbokk yi mu ngi noonu ni ñuy faral di wax rek bu ñu demee ba ni alquran dafa yéex xam-xam bu ñuul moo gën a gaaw fitis moo gën a gaaw sacrifice moo gën a gaaw jonni joni mën a gën a gaaw yaa problème dañoo dem ci ku xamul alquran te ay jullit lañ. alquran maa farat naa fil kitaabi min cheyin yàllaa ko wax bàyyiwuma dara lépp nal fadla bi yadillahi yutihi man yasha yàlla mooy jël ay mbiram jox ko ku ko soob kon nag nañu seete ñi nga xam ni amaana euh, xam nañ ko ba pare teg ko ci ragal yàlla di ci jëf lu baax am na ci loo xam ne nag danaa ko laaj alhaaji abdoulaye ci kaaraange dox wala ci bayre haaji abdoulaye lii nga ngëpp ci sa loxo ci lu muy dox lii mooy kanzul maal léegi yaakaar naa ne moom àddina bi moom làcceetuñ ko man Kanzul Maal ci Sénégal yi laajteetuñ ko. Kanzul Maal baat bi turu arab la. waaw mooy lan. waaw xam nga Kanzu boo ko déggee. mooy coffre mooy coffre-fort. Maal boo ko déggee mooy alal waaw kon xam nga ne ci alal lay dox te nag dafa bokk ci loo xam ne ni dana loo jox boo ko yoree bokk ci loo xam ne ni dafa ànd ak dafa mooy day jeñ waaw. day jañ te lii nag mu jarab la waaw nekkul loo xam ne nii maanaam dañ koy wax nii rek dafa wét dafa wóor te képp ku ko yore ku la liggéeyee dana dee taalal joo am dana des ci sa loxo bi comme li nga doon wax nii léegi nii ay euh, lu ma ko wax mu jox ma jëlal lii man loolu dinaa taxaw tuuti ah Jablaay ndax gis nañ ci lu wér loo xam ne ñun xam nañ euh, dañoo sob tuuti nag di xaw a jege boroom xam-xam yu mel ni yéen gis nañ loo xam ne nit mën na koo liggéey ci xaalis ñëw fekk euh, Moussa mu nekk ci cantine nga wala ci magasin di jaay mu jox ko xaalis boobu mu jaay ko wecc ko xaalis boobu bu duggee ci sa biir waxande wala sa coffre-fort tàmbale yàq say alal yaqulu ahlaktu maalan lubadan demal ci laa uqsimu bi haadal balad am na benn lim boo koy liggéey léegi léegi léegi léegi léegi kum fekkul nga am kaaraangay alal soo ko ci dugalee ci xaalis nga raxas ko ba mu baax nga dugal ko ci xaalis nga num ko nga jaay ko nga nga jaay ko boo boo kiiyee rek bu ko defee dafay daal di num tuddati waaw. kon tey jii loolu firndeel nga ni am na. kon nit ki war na mën a am kaaraange ko. Eh, da nga gis nit ku yore alal yore ay conteneur di dem ko dikk mu toog ba ci kanam affaire bi seey fekk dañoo yàq alalam alal dañ koy yàq gédd dañ koy yàq tool dañ koy yàq kër dañ koy yàq oto dañ koy yàq machine dañ koy yàq société dañ koy yàq. nit sax dañ sax dañ ko yàq waaw. léegi bëgg mucc ci yooyu. <laughs> ci boppam moom la yàlla dox jox pouvoir ndekam saytaane la yàlla jox pouvoir ba mu dugg ci xolob doomu aadama di ko def looloo xam ne yàlla nanguwu ko yonent bi nanguwu ko waxuma laa leneen su ko defee nag daf koy dooleel nag pour mu dugg ci lu bon. di def di defal nit ñi lu bon am na ñoo xam ne lu bon rek la ñuy def da gis nit koo xam ne nii soo demee ci wàllu tool dana bay bay bëgg a dee doo xam dara tool nga diguloo nga dem tool bi nekk nii tool bi nekk nii muy seen suuf nga engrais moo engrais kee am lu bari yow doo am dara fekk tool bi dañ ko yàq nga dendeeg nit place place bi kenn amul sikk ne yow yow daal marchandise rek nga ciy dugal waaye doo gis alal waaw marchandise nga ciy dugal waaye doo am alal nga gis koo xam ne ni dafay commencé di jug dem ñaari yoon siin ñetti yoon siin ñeenti yoon siin ba ci kanam rek mu ne këlëb ñu ne ana alal ji ñu ne yàqu na te fekk wallahi nit a ko yàq léegi nag kooku ne daf ko dul jaral mën naa téye portable bu seer boo xam ne nii mënoon na cee jug rek garante alalam waaye téye portable bi moo koy gënal maanaam mu garante alalam ji pour mu yàqu moo tax gis nga nit da nga war a am kaaraange danga gis nit koo xam ne nii danañ yàq këram ba nga xam ne xar mu fa dugal mu dee béy wu fa dugal mu dee nit koo xam ne nii danañ yàq alalam ba nga xam ne nii alal jooju oto boo ci dugg boo ci jënd mu def accident wala oto bi lu muy bees bees bees bees bees bees bees oto bi ci ay problème rek lay jug su fekkee ne da nga koo jugoon pour wàllu transport mënoo muusu ko waane ba mu indi la alal mën naa dem ba ci nit ki sax danañ dem ba tënk ko ba nga xam ne nii lu mu jàng-jàng xelam mi baax mu am ay diplôme fu mu dugal ay diplôme rek ñu récité ko mm xam nga soo xoolee boo demee ba ci alquraan da ngay gis sunu borom bi tabaraka wa taala mi ngi ciy wax ne maanaam fastajabna lahu wa najaynaahu min al ghammi hmm. allahu akbar euh, Moussa wallahi al azim Euh, nit ñi ñoo xamut fu ñu jëm rek ñi jëm foo xam ne nii seen seen sama mbokk yi yàq affaire yi sëriñ rek waaye ndox fa mu daan taaba ba léegi boo fa demee da nga fa fekk tepp-tepp. loolu dëgg xaaj nañu waaye nag am na foo xam ne moom mënul ñàkk ma dugg ci muy dafa gis sëriñ su bari tey boo duggee ci réseau sociaux yi seen cible ñi leen yëkkati mooy ministre yi député yi diaspora bi te ñooñu sonn nañ. ndax tukki dafa doon qitaaun min al azab dogit la ci mbugal gisoo ndey gisoo baay boo amee yow la boo lekkee yow la boo naanee yow la boo tëddee fa ngay tëdd yow kon tumuranke da lay yomb te ji xaaja Abdoulaye ñi fa nekk ndax lu ni kët lu ni jonn da koy faj fa ay numaatu fa sama wajhu laa nga waxoon yàllaa ngi fépp doole ji kurus am ba nit ki nga mën koo ñaanal te doo ko dox dara maanaam à distance loolu des na tuuti maam jot nañu indiwaat defaat ci benn rassuré boo xam ne lan nga ci wax ni loolu dama cee sant yàlla sax ndax li tax ma sant ci yàlla tey gis nga nit da nga war a am maanaam li ñuy wax secret ñaan secret la gis nga kurus lu mu mënta def amul kurus lu mu def amul mm-hmm. waaye nag est que kiy def kurus kan la dafay tëdd di nelaw wala dafay kurus nit waroo ànd ak moom lu mat ñaari weer wala weer te mbiram soppeekuwut loolu du yoon gis nga boo demee ci alxuraan comme li ma lay wax danga fa gis juróom-ñetti aaya yoo xam ne ne aaya ju ci nekk rek kun fa yakunu la la la la jeexee baatab kun mooy lan nekkal fa yakunu mu nekk yàlla wax ko juróom-ñetti yoon ci alxuraan mu am lim bu mu jàpp mu am benn waay bu ko soxla nekk fële ca Paris lu ne kët na jonn ñu ne suba la wala gannaaw suba la moo xam ñu convoqué ko police wala fu ñu ko mën a ko ñu ne suba la wala gannaaw suba la ñu ne mu ne mu ne kar El Hadj Abdoulaye Thiam na ko suba damaa war a dem police te man naa am su ma demee ñu téye ma hmm. ah, mën naa taxawal mbir yépp loolu loolu am na fii ci man koo xam ne bind nañ sax naka folli nañ la jabaram boole ko ak man nga xam ne ay doomam ñoo doon def bac ma defal leen ñaan ñoom ñëpp ñu réussir mu boole ko ak man moom bi mu ñëwee ba ci man comme ni ma toogee nii ak yeneen sëriñ si comme ni ñuy mobilee seen kër yi ak seen néeg yi moom jëkkër ji daf ma xaw a xeeb sax ci loolu ba li ma waroon a jox da koo xaaj ci digg bi pourtant bi biñ ko bi biñ ko jëlee woon dañ ko ko delloo waaw te bi mu dikkee dama ne ko dey bu ma la deflu dara fi ma toog nii yëg naa fi ne danañ la delloo sa poste bi te noonu la amee. nekk à distance bitim réew soxla séjour wala mu soxla këyit wala ñu war ko révéler wala tey. amu fa benn problème mu këyit wala tubaab mais amatul am xëy. loolu ku nekk xam na ne sun mag ñi nga xam ne ni dañ daan teg lasaraar ci yoon ak ñaan ci lasaraar ci yoon dañ ko daan def nit ñi di ko teg seen bët. léegi la jamono yàqu fen yi bari wax yi bëri kenn ku ci nekk di doxe na la neex waaye dëgg moom fa mu doon nekk ba léegi mu ngi nekk dëgg waaw. bu soobee dinaa jeexale nag loo xam ne Adja Abdoulaye mooy catal jataay wax ci da cee bari te mooy bayre yi nekk ci xeeti jaaro yi ñu naan bayre lii bari ñi ngi ciy nax nit ñi loolu bëgg naa nga indil ma ci benn uh, saraa bu tuuti rek. waaw li ma la ciy wax rek. mooy yi ciy jaar ci man nga xam ne dañ ciy nax nit ñi dafa am seeboo ma ne la bu ma ko doon lim du xaaj du jeex ñoo xam ne dañ may yónnee kii daf may yónnee lu mat juróomi jaaru kii di ma yónnee ay fukki jaaru ñu leen ay jaaru fitis ñu leen ay jaaru nàngam gis nga nit ko am xel waruñ laa nax ci affaire fitis nit mënoo nekk Paris nit ki nekk fii senegal mu lay def loo ab sewo ci ndox naan laan boo dee toogee ba ci kanam demal nga dippi ko jinne ji na fa dugal jaaru man yow ak ki koy sant yëpp xaw ma yéen ñaar kan moo ci gën a gëma di yàlla parce que loolu amut amut nekkut fenn gis nga jaaru li ko tax daan jug maanaam naam am na ay pason jaaro bu nekk ak li ko tax a jug waaye dafa am jaaro yoo xam ne nii pour kaaraange moo ko tax a jug xam nga léeg nit dana dem ci barab ñu defal ko ñam woo xam na nii daf ko war a lekk te ñam wi muy tooke wala mu dugg ci sa biir bi def la ngelaw léegi nag mag ñi dañ daan gis dañ daan liggéey ci crafilu yow jàng nga xam nga crafilu crafilu soo ko xoolee dangay gis ne waa asxaabul kahfi juróom-ñaari nit lañu woon juróom-ñaari maanaam ñi fa nekk waa asxaabul kahfi maanaam ñoom seen doom yi juróom-ñaari doom lañ boo ko limee juróom-ñaari doom lañ wa saaminum kalbuhum nga xam ne seen tur yooya nag moom ngay boolanteeg karafilu bi nga liggéey ko gis nga ku la liggéeyee dana di ku la def loo xam ne nii maanaam pour jox la loxo pour foqet du baax ci moom ku la jox ñam beeboo nga lekk dara la la dul wàññi te it yàlla dana la jox bayre te dugut loo xam ne maanaam da ngay toog mën a laan fitis la nga di ci am bàkkaar parce que fitis dafa am de am na ñoo xam ne nii dañuy yoole ñii da ngay gis ne dañuy am góomu deexaale ñii da ngay gis ne danga boo demee da nga gis ay ñu wéradi ci seen kër yi ñii da nga gis ne jamono bu nekk ci tuur deret rek ci la ñuy dëkk waaw waaw loolu takk xala la loolu du dara loolu du dara loolu dindi ko du dara waa dañoo jëmul ci alxuraan rek waaw dañoo yow mos ngaa gis tey nga ñëw fii ñeneen la El Hadj Abdoulaye Thiam wàllu néew kàttan bi muy joxe maanaam ci ren ak sunguf ci la koy joxe alxuraan ji rek ma ne nit mënut a jàngale alxuraan lu mat ñaar fukki at ak nangam. judd ci alquran màgg ci alquran jàngale ko sa waajur doon ko def li nga lay def nii ci wàllu asraar sa waajur doon ko def te mënoo cee xam mucjisa waaw agsi nañ ci catal jataay bi mbokk yi ki ñu doon àndal ci jataay bi tey mooy alxaaji Abdoulaye Thiam ni leen ko waxee rek mi ngi ci Pikine Icotaf boo ñëwee ba ci wetu cinéma awa wala arrêt syndicat bi immeuble bi nga xam ne mooy immeuble bu mag bi nga xam ne moo am promobile bi ci suuf boo fa taxawee rek jël numéro yooyu nga xam ne moo affiché ci suuf ecran bi dinga mën a gisante ak moom ci kàttanu suñu borom li mu junju ci kaw nag li mu denc ci suuf a gën ndax asraar baatin la deesu ko weer ci pénc mbiri biir la te al isaaratu takfi li ma a xal junj doy na ki nga xam ne am na xel te ki am xel na mooy ki am ajo aajo Abdoulaye looy tàggoo mbokki bi waaw li may tàggoo rek mooy léegi jamaano bi dafa demee noo xam ne surtout ci wàllu listixaar maanaam ñi koy wax sëriñ boo gis rek li mu lay njëkk wax rek mooy listixaar listixaar nag du ñëpp ko man waaw ñëpp du ñëpp ko man de ñii toog di wax li leen neex ak ki man listixaar du benn te it nag nañ bàyyi naxaate yi ndax nit mënut yëkkati alalam jox la ko te waxtu wi mu la koy jox waxtu wala xooyee jot la mu dem ba jox la ko di la xoo mënatulaa jot loolu ak caay-caay la képp ku ci nekk yaa ngi yàq deri sëriñ si te nag sëriñ dafa am tu dafa am foo sëriñ yi dafa am comme ni foo duwaañu amee waaw loolu nag yàlla nañu ci yàlla musal fu ñu toll nag danañ ko dénoncé ndax loolu du jikko bu rafet du jikko bu rafet nit ki su fekkee daf laa xoo yaakaar la yëkkati alalam jox la bu la xooyee wuyu ko loolu mooy yoon lu mu la wax boo ko mënu ngeen ko mënuma ko waaye woo la jox la xaalis nga téye xaalis bi mu di la woo doo ko jël wala nga boloke ko loolu ak caay-caay la yéen ñi yore site yi nag war ngeen di signaler ñu dénoncé leen génne leen ci seen site yi maa ngi leen di ñaanal yàlla tawfiq ak taysiir yal yàlla defal leen jàmm yàlla defal leen sutura yal na yàlla barkeel leen te seen site yi yàlla def ko muy tele ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa lu dul njub rek njuba ko gën wasalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi lu dul njub njub ko gën kooku mooy alxaaji Abdoulaye Thiam li mu doon wax ci xol la koy tibbee te mooy xawlul euh, xaqi te mooy wax dëgg joo xam ni dëgg gu wér péng lay doon ndax wolof day léebu naan wax bu feebaree nopp ya koy dégg ñoo koy faj lii mu wax ku tàppe internet bi gisal ko sa bopp déggal ko sa bopp wax ji bari na te bu doon lu ñuy ubbi téléphone di nga fi am appel yoo xam ne nii tudd fi tur yoo xam ni maanaam loxo dana dar gémmiñ tey li koy waral mooy am aajo ñëw seet si nit wax ko sa soxla mënuma ko du gàcce de ndax fa nga yem fa sa xam-xam yem am na koo xam ne fa la tàmbalee jëm kaw kon nañu boolewaat ragal yàlla ci mbir yi di wax lu ñu mën tey def lu ñu mën bi sóor ni bés a ngi ñëw boo xam ne nii cër bu nekk dana layol boppam la mu defoon kon foofu la alxaaji Abdoulaye Thiam taxaw te foofu lay woo ñëpp kon mbokk yi ku jóg xoolal ci ki ngay dem kon nag jokkoo leen ak moom ci numéro yooyu mu dimbali leen ci kàttanu suñu borom ci xam-xam bi suñu borom def ci moom te ñun ñu am ci firnde yu wér ni laa biir na ci tegu na ci ragal yàlla te ku ci ñëw lam la ci wax ni la waaw dana ko def lum la ci ni du ko def ac mbokk yi kon mu ngi noonu ñuy ñaan nag ngeen wéy di abonné ci seen chaîne bi nga xam ne mooy Dakar People ngir ngeen di gën a jot suñuy notification ak mbooleem vidéo yi bàyyi fii nga xam ne moo ci Dakar People jër ngeen jëf ci yéen ñi ñuy topp